Pape nuyu naa. buur maa lay fay. tay Pape dafa melni xol bi dafa sedd quoi ndax euh, tay fek si ne koo xam ni euh, koo ko yàgg ak moom ci compagnonnage rawatina ci musique Bakary euh tek projet bu melni ñu gis ci fierté bi ci Pape am. waaw mais c'est normal xam nga ku ne pap ne Bakary ku ne Bakary ne pap Diouf donc euh, mu nekk projet bo xam dafa yàgg nekk ci xolam moy limay wax sank euh ki ma doon interviewé mané ko peut-être sénégalais dañ ci attiré wul attention mais Bakane dafa yag investir ci musique ndax limité wul bopam rek comme un simple percussionniste mais rêveur le il est ambitieux yag nak taxaw représenter famem yag taxaw représenté musique sénégalaise partout dans le monde donc li tay dafa luko bopam mais musique sénégalaise la defal particulier particulièrement nak ku melni man ndax Bakane sama diganté ak mom ça date de 22 ans donc l'histoire histoire là. Bakane mhm. ba de dafay continuer de maintenir maanaam position de la génération consciente en tant que percussionniste. mais Bakane moom studio bi moomu ko studio bi qui yee ko moom mais génération consciente la bokk est mooy xolu génération consciente.